Euh, agent de santé yëpp. di leen féliciter seen taxawaay maanaam ñu jublu te farlu ci mesures yi nga xam ne dig digle nañ ko. góorgóorlu ci mesure d'hygiène yi góorgóorlu ci euh, yeneen gestes barrières yëpp ah mooy masques yi farataal leen bu baax a baax a baax ah, wàññi dajaloo bi euh, loolu it sooxe nañ fa gis nañ ne. doy na waar lool ci sénégalais yi seen taxawaay parce que gis nañ ne am na ay résistance yu bari par rapport ak dajaloo beeg fréquenté beeg bàyyi ni ñu daan dundee bu njëkk loolu nag yombul. yombul parce que sénégalais dafa am euh, culture amone mode de vie yo xamné ni ne nii euh, sociabilité bi dafa amoon doole lool. donc boo buggee indi rupture bu drastique ci temps bu gàtt bi yoon la mu metti waye dañuy ñax sénégalais xamné li tax mi leen koy laaj. lu ko jar la tamit parce que wergu yaram la té virus bi virus bu dangereux la woné na mel ci aduna bi. donc suñ buggee yemale ko fi ci dir bu gàtt euh, yemale itam ay musiba bi mu andal ci dir bu gàtt il faut ñu def effort. ñi nga xam ne nii experts yi laaj nañ ko pour euh, amul beneen pexe looloo ko fi mun a moo ko fi mën a yemale wàññi nako bu baax waye comme ni ma ko waxee sànq comme dafa dal euh, aduna bi yëpp donc ñëpp ci ni ñi liggéey seeni doxalin ak ni ñi dundé yëpp dañ koy xolaat mm-hmm. c'est vrai que changer na indi na coppite ci liggéey bi euh, parce que ñëpp mënatuñoo dajalo mais euh, am nañ yeneen pexé yo xamné tek nañ ko en place. Mm-hmm. pour mun li nga xamné ni mission lañu ñu jagleel ñu ko ñukoy motal aussi. ci ak yeneen moyens des moyens technologiques qui nous permettent de nous réunir et d'assumer les responsabilités yi nga xamné mom lañu mom lañu moom la ñu nguur gi dénk

maanaam euh, secteur pair yi mooy ñi nga xam ne ci bimestre bi ñoom ñoo njëkk a jot seen facture yi ñu war a njëkk a njëkk a laaj ak euh, beneen pàcc bi ñoom ñoo mujjee jot waaye ñi ci bi ci bi ci mujjee laay commencé mooy ñi nga xam ne seen relevé le 7 avril la waroon doon ñu war koo ñu war koo fay ci date limite le 15 mai

ministre bi leerale woon que ne voilà jéemoon nañoo xool ay pexe yu ñuy def euh, bu ay facture courant yi jëm ci parce que milieu rural xam nga ne bu dee yor milieu urbain bi milieu rural bi euh, ay fort la association chaque forage ak dispositif bi koy gérer en dehors de naturellement DSP yi ñu délégation de services publics désigné ay privé yoo xam ne ñoom la nguur gi dénkoon na euh, gestion forage yeeg ndox mi ci milieu donc ay AGEFOR la léegi ñu ngi doon xool ci yan aspect lañ mun a def ba valeur boobu noonu nga xam réduction la ñu def ko ci milieu même montant boobu naka lañ ko mun a matérialiser. ci ci ci dispositif rural, non quoi. en terme de chiffre en terme de pourcentage mon nañ xam état d'exécution. Euh, bon facture parce que ñi ngi ñëw ñu jot jot sen facture 15 mai yi jël nañ ko ñeneen ñi ci mois de mois de mois de juin bi di ñëw les prochaines factures dinañ ko indiquer ci facture yi avoir yi. Mm-hmm. donc je pense que do état d'exécution exécution mais c'est des faits quoi normalement. Mm-hmm. waaw facture yi ñu jot sen i facture mandargal nañ nañ ko ci moy moy ñi fay sen facture 15 mai ñeneen ñi ñi wara jot sen facture yi au mois de juin dinañ ko ci mandargal aussi. lu rafet la dañ koy parce que dëkk bi euh, bu ñu waxante dëgg nit ñi bëri dañoo sonnoon déjà bo génnee Dakar rek xam ne euh, voilà euh, réew mi doon na léegi su ci phénomène bi yokkoo président dans sa grande sensibilité voilà bu décidez de 65 milliards de jagleel ko euh, pour dimbale les ci ci ci difficulté yi dañ koy saluer lu ñu lu ñu yitewoo la soxla la. am na dégg non seulement te xam naa ne euh, ni moi ko xamee ci yërmandeem ci Sénégalais yi. Euh, aide bi war a fi parce que bu bu ni ni pandémie bi di évoluer ak même bu fi yemoon sax incidence économique yi muy jur euh, plus tard sur euh, sur euh, sur les activités dina tax ba ñu bari ragal naa ne coono dina leen dina len dab lool lool lool moo tax may ñaax président su ma ko munee euh, ci waxuma li mu jot a def waaye prévoir beneen dimbal loo xam ne nii aussi luy jëm ci jàppale ji askan bi la ci fan yi ñu jëm ci kanam. mu gën koo yaatal gën koo yaatal te tollanti ko surtout. Mm-hmm. maanaam ñëw na benn yoon mais fexe nu ñuy dajaleewaatee xaalis yooyu pour mun a ñëwaat en net parce que ñun suñu suñu réew yi melul ni réewu réewu grande démocratie yi nga xam ne nit ñi am nañ ay ressources. Mm-hmm. la nature des aides euh, plutôt constante ah hein. euh, il déjà donc mi bu fi euh, day trop trop état rek am comme ressources nous. war na certaines couches quoi vraiment défavorisées. man commentaire parce que xam nga euh, ci situation ñu ko situation d'exception c'est pas pour rien. que ñu woowee ko sida wax nañ ko sànq euh, tiis bi dal adduna bi dal Sénégal ak risques yi mu mun a engendrer su amee ba ñu jël ay décision ak ay euh, ay largesses yoo xam ne def nañ ko. parce que dañu jàpp ne li am solo ci jamono juñ toll nii mooy euh, fexe ba dem soulager ji suñu suñu concitoyens yi nga xam ne nekk nañ ci ay difficultés yu tara tara tar donc. nañ def tout ba accélérer mesure ba ñooñu dimbal li nga xam ne ni yittewoon nañ ko te mu war a jëm ci ñooñu jot ci.

wax deug yalla euh, le ministre Mansour Fay li mu wax lu ko gëna a leer munta nek quoi wax deug yalla def nañ ay consultation ñi nga xamne ne ñëpp euh, dugale nañ tegoon nañu ay critères aussi naturellement ñi remplir critères yi wax nako ay la transparence toute la transparence possible denk nañ leen li leen wara denk légui nak bon am ñi mu doy doy na leen ñi mu doyul nañ bayyi bañu ñu génn ci situation bi su fekkee ne dañoo bëgg ñu auditer waat bilan ak projet bi naka lañ ko doxale woon ñu waat ci mais fu mu toll nii foog naa ne ñun ñëpp suñu yar ak suñu suñu suñu teggin mooy ñu respecter sénégalais yi concentré wu ci xeex bi ñu xam te respecter douleur ak souffrance yi ñu ne ci biir ñu ne ci biir dëkk bi te yitewoo aide ndimbal loolu. donc fexe ba ñu jot ci loolu mooy loolu mooy question ñu war a euh, poser teg sur la table. et puis demain s'il faut faire des des bilans ñu jublu ci élément de bilan ya xool kan moo defoon lan ak ci naka la yan anam la ko defee. jàpp nga ne transparence nekkul lu am solo lu gën a am solo surtout si contexte bi ñu nekk. contexte bi waxuma ne amul solo mais chaque contexte il hiérarchiser euh, urgence yi fu toll ni man dama japp né ci fi toll moment biñ de toll ni li gëna urgent nekul auditer système de gestion de non li gëna urgent moy urgence bi pour président mu dégager 69 milliards ak d'autres dispositifs pour venir en aide à ces populations là pour man loolooy urgence fum toll ni néwuma lénen li amul solo bu amé solo yi tamit du per moment bi lañ ko wara def nañ bàyyi ba génn ci situation bi ñu toll ni ne ci biir xolu tool yi te génn guñ ci parce que Covid baa ngi ci dëkk bi di manifesté wu di li muy def sax di gën a taral euh, métiwaayam parce que wàllante baa ngi gën a doy waar et cetera pour moi le moment n'est pas le mieux choisi pour pour poser des éléments de bilan nañ bàyyi ba génn ci lii te mooy li ma wax sànq man ci sama wàllu bopp ça n'engage que moi mais li ma gis li ministre bi wax lu ko gën a leer mun ta nekk transparence mënul weesu ñu ne critères yi lañ teg oo nañ acteurs yi ne leen lii lañ bugg a def lii mooy prix yi ñu ko bugg a defee lii mooy critères yi ñi ko ñi ko remplir ñëw ñi ko remplirul et cetera te ñi ko jël ñëpp ay nit ñu jàpp ne remplir nañ condition yooyu la maintenant yeneen considération de nit mu am ñaari société ak affaire yooyu c'est d'autres considérations pour moi euh, de manière futile mais surtout ci moment bi ñu nekk nii na naa xaar quoi bu ñu rombee lii ñu ñu message bi mooy di di di le remercier di di remercier cette euh, seen structure bi di ñaax sénégalais bu baax ci farlu ci ñu xam ne euh, léeg-léeg ci jamono dañuy dem ba di nga am noo doon dundee noo xam ne il faut nga soppi ko parce que euh, l'être humain a toujours résisté par rapport à la nature et ses assauts donc euh, Edgar Morin manquait de koy dégg mu naan dañoo war a ci suñu même li ñu yaakaaroon ne mooy li doomi aadama soxla est-ce que loolu la est-ce que nous ñu réévaluer waat suñu ay besoins d'existence hein? donc ku nekk xoolaat sa pour chaque communauté xoolaat sa bopp ngir nga xam ne mbas mi am na tey mais lu mun a ñëwaat la naka ci li d'undé. dundee lañ mun a soppi ba nga xam ne lu mel nii su amatee dina permettre ñun nous survivre ko d'une façon un peu plus efficace et puis di di ñëpp ne euh, mesures yu ñu teg métti nañ lool métti nañ trop waaye na ñëpp jàpp ne rek pour su wérgu yaramu askan la et suñ ko deful euh, mun naa mbir mi mun naa ñaaw lool. donc ñu góorgóorlu ci bu baax a baax lu métti métti ñu wàccoog digle yi nga xam ne ni experts de la santé yi teg nañ ñu ko.